محصل العلم وزنه بالتقى وسائر الأوقات فيه استغرقي وليك قلبك له أفرغ من حجا بسابات ومن لم يعشق وحصل نغا ساكو العلم خم خم وزنه نغا بيسنك بالتقى تكرغ يالا مانام لنغا خم نمو تولو رك na ko sag wattandiku la ñuy tere te loolooy looloy wa na ko sag wattandiku la ñuy tere toll maanaam nu sa xam-xam toll na ko sag ragal yàlla toll maanaam fépp foo xamee ni lii daganul sa xam-xam jot na weesu lu jëkk li ba àgg ci leneen lu mu xam ne ah looloo daganul nee na sag ragal yàlla na fa agsi nga daal di bàyyeeti loola ba mooy loolu maanaam maa ngi ci jublu fi fi li mu ni wasin hu peese ko bi tuqa ak ragal yàlla wastaxriq labalal jeexalal saaira lawqaati mboolem say waxtu fii ci sàkku ko wal yekku na nekk xalbaka sa xalbu ko saxol gën a féex la hoo ñeel ko min xajjaami saabaq ci nampla namptalkat ba nekkoon saabaq tuddoon na misa waxoon nañu tuuti ci xabaaram ci maqaam xajjaamu saabaat dëkk la benn namptalkat waxoon nañu ni li tax arab def ko masal eh, naan afraxu minhu dafa amoon atali maanaam eh, place ba muy liggéeye daal xaw ma atali la ndax bu xëyee fa lay nekk clients yi di ko fa fekk muy nekk ci métier moomu nàmpatal kii dem ci kii su jekkee ba ay tàng na clients yi manqué manqué manqué te bëggul place bi widd ku fi jàpp ni eh, kii liggéeyatul daal di dem ci keneen mu bañ loolu Eh, tax muy génne yaayam su amul ku mu nàmpatal rek daal di koy nàmpatal nit ñi di ko fa romb rek gis ni waa ji kat client yaa ngi ñëw ma ngi liggéey ndax benn liggéeykat benn ouvrier bu ñu xam bu am place bëggul place ba widdi nit ñi daar fa duñu fa fekk ay client ndax loolu day dàq ay client moo tax bu amuloon xott yu mu fa def sax day fori ay xott ca mbalis ma dikk tegale fa tegale fa semence si repartir rajo yi da nga fa gis yoo xam benn njëriñ amu ko dafa bañ place ba wit garage oto yi noonu moom itam arab nag ni waa ji nag di def du amul kenn rek di nàmpatal yaay ji ba mujj deret ji jeex soxna si dee arab nag ni afraxu min xajjaami saabaat kooku daal moo gën a féex ay loxo nàmpatal ko lu saabaat ki amul lu mu def ba eh, mujj ci fawra yaayam noonu moom ci adab lay taalif rek di xam nga ni kon mu wax leneen lu dul loolu mu ni daal booy wut xol xam-xam sa xol na féex bu ci benn soxla bu mu këppe occupé benn soxla bu dul xam-xam na sa xol gën a féex eh, dégg nga eh, nampatal ko sabaat ndax arab da daan afraxu minhu afraxu min xajaami sabaat ak itam waman lam yachaq ka xani ishq newul ci moom amul woon jigéen ji mu mas a na sa xol gën a fee xol kooku yii yëpp dafa ishaara jëm ci ay qisas ak ak way hmm. mu ngi mel ni ku ni way ki waxoon ne laa yacrifu shawqa illa man yukaabiduhu wala sababata illa man yucaaniha nee na shawq cofeel te mooy am koo sopp nee na tartar yi ci nekk li muy yóbbee nit du ko xam illaa man yukaabiduhu lu dul kuy jànkoonteeg moom a koy xam hmm. wala sababatu ba tey sababatu mooy riqatu shawq cofeel illaa man yuaaniha du xam sababa it lu dul ku koy jànkoonteel yaari satar bayte yi ñoo bokk ma lu mel noonu nag lay junjal ci waxam eh, yi وخص علم الفقه بالدرس وكن كالليث أو كأشهب والأتق وفي الحديث النبوي إن وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي ne waxussa da nga jagle nag ilmal fiq bi darsi ci njàng wa kun nekkal ci ilmul fiq ka laysi mel ni ki laysi bnu saad aw waay mujtahid ngandu mujtahid bu laysi min aqraani malik na ka ka ashab wala nga mel ni ashab taalibe malik bu mag wala nga mel ni ki otoqi mooy abdou qasim abdourahman ibnu qasim otoqi mooy ashab ñooñ nag ñaari ñaari ci yi la ñoom ñaar nag ñi ñuy likkee lañu ni ñuy likkee abu yusuf ak muhammad ibnul hasan ci ci madhabu abi xanifa ñaar ñooy taalibeem yu mag waaye abdurahman ibnu qasim ak ashabit bu ñu nee malik abdurahman lañ ci tudd te mooy ibnu qasim tudd ashab ñu ci gën mag daal wa fi lxadis nabawi ci xadisu nabawi itam day waxta wax kii wuti xam-xam in lam takun su fekkee mënoo nekk mislal Buxaari yi mi doon moroomu Buxaari dëgg waaye fa ku nekkal kal Bayhaqi seeta rek ah, fal ilmu fi dunya wa fi l oxra lahu fadlun fa bashir xisbahu charran wuqi fal ilmu ndax xam-xam fi dunya wal oxra ci àddina si ak ci àllaaxira yëpp la hoo ñeel na ko fadlun ngeneel bu dee ci biir dundu àddina gi bu dee ci àllaaxira wuqiya xisb Euh, ah, dégg nga ah, ah, wuqiya fegaleef na xisbuhu waaw danoo jël fa bashir ah waaw waaw waaw kay aha fa bashir laa jël waaw kay kursu kon fa bashir bégalal xisbahu kurélam dégg nga boo xam ni wuqiya fegal nañu ko charran hay waaye kon charran wuqi boobu jumla luy pal luy mawqi am ci li'raab ah. ah xanaa nga liraabe ko xaal fa bashir bégalal xisbahu gurubam gurubu xam-xam waa xam waa sàkkukati xam-xam yi waa borom xam-xam waqiya mbir mum fegal nañu ko charran hay mu nekk palaasu nasab wala nga def laaf gi mu bañ di max maxda mel ni ki xisbahu lam yataarraf bil idaafati mel ni nakira la mel ni danga nga ni fa bashir xisban wuqiya char xisbahu waaye nag ñàkk damiru raaji gi moo nu bàyyi ko ci taawil bu njëkk ba fa bashir bégalal xisbahu waa xam-xam mbooloom mbooloom xam-xam euh, xaala kawnihim moom xisb bi wuqiya charran dégg nga waana bi qawli shicri fa shicru kama lun lilfata in lam in bihi lam yartaziq in bihi lam yartaziqi wa shicru lilmajdi nijaadu sayfihi walil ula kal iqdi fawqa al unuqi nee na waana na nga ittewoo ba tey ci wàllu xam-xam bi qawli shi'ri ci wax way ah ndem man nga ko ndegam am nga am nga maanaa ah, tabu bu way ndegam am nga way tabu sa jiyaam ndegam yomb na la na nga ittewoo di taalifi way fa cheru waykat kamaalun ak mat la lil fata ñeelas cam in lam yartasiq ndegam wutul wërsëg bi ci moom ndegam taxu ko topp ko ba soppi boppam géwal doon ab woyaankat kat bu boobaa darajaam day wàcc waaye su fekkee ni ma ngi yor jomam rek wax wayam yu rafet waaye defu ko ñaanukaay comme géwal buur bu ne ak borom alal ju ne mu tagg ko bu boobaa darajaam wàcc na bu ko yëgee bu ko yëgee wa cheru way li majdi ni mu li majdi ni mu mel ci tedd nga ku koy wut kuy wut daraja nee na way nijaadu sayfihi mooy wékkukaayu jaasi majdi mooy nijaadu sayfil majdi mooy wékkukaayu jaasi tedd nga ah, nee na ni mu way ni mu mel lil ulaa ci sharafit ci kawe mooy kal iqli fawqa al unuq ma ngi mel ni caq bu ne ci loos maanaa neena woy ni mu mel ci ulaa mooy sharaf ku bëgg a kawe daraja way ni mu mel yow ma ngi mel ni ci caq wurus bu ne ci kaw loosu jong da ko moo koy taaral hmm. bismillah faqulhu faqulhu gayra muksirin bihi wala taaba bi qawli jahilin aw axmaqi hmm. maa caabahu illaa cayiyun mufxim mufxamun li carfihi dakiyi lam yantashiqi nee na faqulhu kon yow waxal way rek xayra muksirin bihi bul ci bareel ba mu ëpp nag defe ni taalif way mooy lépp ci àddina sa ngay taalif di dem rek di teg kooku nag amul maana bàyyi rek di def bu mu benn munaasib dikkee rek nga nga def ca Maodo booba way wu rafet woo xam ku ko gis ni ci waaye nag dal di way baax na tax ngay taalif di teg rek nee na kooku iksaar bi daal moom amul solo ndax moom wax la rek la comme wax la fa xasanuhu xasanun wa qabixuhu qabixun te wax nag ma ta jéggil da fa qul hu wax ko xayra muksirin bihi fekk doo doon ku koy ëppal nga xam ne da ci di way di teg rek wala taaba bul faale nag bi qawli jaahilin ci waxu aji réer joo xam ne day bonal way aw axmaq wala ab dof maa aabahu musta aybal way mutlaqan illaa ayiyun lu dul koo xam ne dafa tële wax way mufhamun moo koo xam laa yaqulu shiar mufham mooy koo xam ne mënuta wax benn bayt ah, koo xam ni eh, lam yantashiq banamtikuwut xeeñtuwut li arfihi ñeel xetam zaki gu neex arf mooy xet waaye kenn du ko xet gu naqari gu neex rek lañ koy wax xarfu tayib kenn du xet bu naqari kenn du ko ne araf dégg nga lam yantasiq koo xam ne mustabanamti ku li arfihi ñeel xetu way azzaki gu neex ga kooku doo nga koy ayibal ko maanaam musta mën a wax wa kam kam xaajatin waaw yi dindi ko waaw yi ci wa kam xaajatin laa ni dindi ko bokku ci kenn mënu ko koo wayaala de li yazidu ala al wazn wasnu bi mooy kam xaajatin yassaraha wa kam qada du noonu la war tool mustafalan mustafalan mustafala ñett la kam xaajatin yassaraha wa qad qad wa kam qada waaw kam xaajatin bare na aajo joo xam ne yassaraha way yombal na ko bare na booy wuti aajo ci benn kilifa def ko xasida bu rafet bala ngaa àggal mu faj sa aajo surtout arab yi noonu niñ ci daan ah wakam xadaa bari na bu mu àttee bi fekki aanin ci daal di jot asir bu buur yi tëye woon ci geer yi wala yu dem yooyu aani mooy asir asir mooy kuñ jàpp ci xare yeeg yooyu nee na ka koy tinu ji dal di dem tagg buur ba ko tëye woon woyu rafet rek mu daal di ko ko jébbal comme naabixatu subyaani ni mu daan def ak waa xastaan wa asirin ak ku ñu jàpp asir asir mooy aani rek kat asir mu ngi faral a ci xare mursaqin ku ñu yeew aanin asirin atafu firir ci aanin ndax la nit ñi gën a xamas aani wa kam adibin aada ka ci tagg way la nekk njëriñi way bare na adib borom adab goo xam dellu na mujj adamana saara kan naf fi mel ni waa ju ñu wax natf xinan ci koom waa ju bare wërsëg ju yaatu wërsëg ju nee na bari na boo xam ne dafa mujj mel na natf ci koom wa kaana te mu nekkoon bu jëkk af xara gënoon a ñàkk minal muzallaq ci waa ji ñu dox muzallaq seetare naatin an il hawa lam yantiq wa kam xadiisin bare na xadiis bare na xadiis boo xam ne jaa anaa dikkal nanu bi fadlihi yore ngëneelu way xadis boo xam ni manees na caa xamee ni way lu baax la xadis ba jóge fan an sayidin jóge ci ab sang bi nga xam ni lam yantiq musta addu mukk anil hawa kàddu gu jóge ci bànnee xam in huwa illa waxyun yooxaa wa huwa muhammadun alayhi salaatu wassalaam nee na xadis bu jóge ci moom bare na xadis bu dikk boo xam ni danañ ci xamee ne way lu baax la wa qad tamathala bihi sallallahu alayhi wa sallam nee na tam tamasule na ko maanaam misaaloo na ko ma moo mel naka tamasul mooy nga eh, comme waxu diw jëni nangam nee na loolu def na ko te lu bon du laal du ko ci moom eh, ay temps xaataa wax na asdaqu kalimatin qaalaha shaair kalimatu labidin ala kullu cheyin ma xalallaha batil eh, wax na ni Euh, asdaqu kalimatin qaalaha mu ni gën jaa dëgguy kàddu gu woykat ma sa wax day mooy li la biit ni ala kullu cheyin maa xala allaha baatilu wa kullu naimin la maxaalata zail hmm. ah su ko defee mu ni loolu lépp bu woy amul woon solo du am kon laa yatamasalu bihi wa kaana nekkoon na itam ba tey moom yonent ba alayhi salaatu wassalaam yasmauhu di déglu xadis min asxaabi ci asxaabaam yi nga xam ne ay char chaara lay ni ki xasaan ibnu saabita ki abdullah ibnu rawaxata naa na daana leen déglu ñuy wax seeni way te loolu lépp su way doon noonu lu baaxul du ko déglu mu daan ko déglu fil xalaq ci géew yi ci xew-xew yi munaasabaat wa qad bana al mimbara libni saabiti fa kaana lil inshaadi fiihi yartaq waqad bana samp woon na al minbara minbar ba libni saabit ñeel xasan ibnu saabit fa kaana mu nekk yartaqi di yéeg fii ca minbar ba lil insaadi ngir di saddi way yufaaxiru anhu dégg nga yunaafixu anhu al kuffaar di tontoonteeg yéefar yi ko daan jëme seeni way mu di leen mu yéeg ca minbar ba di leen tontu di way ay wayam nee na yooyu yëpp bu way amul woon solo daal loolu yoneen du ko ci seetaan ak di ko ci baax wa qaala libni ahtamin fi madxihi wa dammihi li zibriqaani l asmaqi maqaalatan xatamaha bi qawlihi inna min ashicri la xikmatan taqi nee na wa qaala wax na libni ahtam ñeel ibni ahtam amru bnu ahtam fi matxihi ci taggam wa dammihi ak xasam li zibriqaan ibni badr al asmaqi ka gën a gudd eh, maanaam mu kawe kawe daraja tax muy wax nag waxul te kawe kii taxal zibriqaan ibnu badr ak ahtam eh, amru bnu ahtam day ñaari kilifa yoo xam ni euh, ci kilifay bani tamim la ñu jóge ca di kilifa yu mag ku nekk ci gox ba mu dëkk ak ciy bokkam ñu dikk nag ci yonent nag ah nee na Sibirqaan ibnu Bart nag ku bëgg feeñ la dal di seboo sebu fi kanamu yonent man maay nangam maay nangam maa deme nangam maa demee nangam maa demee nangam dégg nga Eh, daldi ni joxañ amru bnu tam ni ko kii xam na li may wax seede na ko ah amru bnu tam eh, ni ko ni ko ah ku ku la booy wax ak moom de te itam ku ñu déggal la ci ay bokkam ci seen réew seen xaan ni ko moo na moom de xam na ci man lópp loolu waaye añaana ko te <laughs> mu ni ko man danaa la añaane man danaa la añaane yàlla xam na ni ku boni na jaay nga te alali bërk démb nga am te ku dofi doom nga mudayaun fi l achira daal di ni wallahi ya rasulallahi laqad sadaqtu fi l ma kadabtu fi sani yàlla xam na ko yoon wu jëkk waxoon naa dëgg te wu ñaar yoon wi fenuma mu ni ko eh, kii nag mu ni ko li kii wax nag ci yax bi nag moom ci la kii am ndax moom dafa ni yonent da ko ni inna min al shi'ri la xikmatan te déedéet inna min al bayaani la sixran ah, loolu loolu nag moo inna min al bayaani la sixran moo doon xadis bi moom moo xaw kii tuuti inna min al shi'ri la xikmatan taqi mu ni ko bokk na ci way xikma boo xam ni taqi dana fegale maanaam dafa saxwu tuuti rek xadis ba mooy inna min al bayaani la sixran waaye daal xisa ba moo doon ñaari kilifa yooyu daal kii daal sebu na fa bu baax a baax a baax ah, mu ni ko ana sayidu bani tamim maay kilifa bani tamim gépp wal mutaau fihim maay ku ñu topp fi ñoom wal muhababu ladayhim maay ku ñëpp bëgg am naahum min azulmi dama leen di tere tooñ wa a wa axudu lahum xuquqahum maa leen di jëlal seeni aq seeni aq yëpp kenn du leen wa hada yaalamu te waa ji xam na loolu ah amar ni ko la sa innahu la shadidul aaridati maaniun li janibihi mutaaun fi adnayi fa qaala zibriqaan ama annahu ama innahu yaalamu akthara min dalik akthara min hada walakin manaahu alxasan qaala man ko ana ana axsuduka fa wallahi innaka la laimul xaali xadisul maal axmaqul walad mudayaun fi lashira wallahi ya rasulallahi laqad sadaqtu fi lula wa ma kadabtu fi thaniya wax rek la ñu mën wa indama samica min qutaylatin rasya qatiliha alladi lam yuctaqi radda laha salabahu wa qad baka shafaqatan bi damcihi muntaliq nee na way ba tey li tax am na solo wa indama samica waxtu wa yonent ba alayhi salaatu wassalaam déggee min qutaylata bintu nadr ibni alxaaris ba mu déggee ci qutaylatu bintu nadr ibni alxaaris way ya muy jooye baayam nadr ibnu alxaaris kenn ku yéesoon ci kuffaari quraysh ci yonent mooy ko daan wax naan moom lay alquran di wax ne wa min annaasi man yastari lahu alxadis li yudilla an sabilillahi moo doon wax naan da daan dem Euh, Faris ak Rome di fa jëlee seen ay ay asaatiir comme ay lu mel ni ay journal ak ay asaatiir yi dikk naan leen indil naa leen lu gën a rafet li Muhammad di woote ni dañ koo wedd ci moom dégg nga moo doon waxaat ni allahumma in kaana hada huwa alxaq fa am min indik fa amtir alayna xijaaratan min assama ak yu demee noonu euh, dégg nga nadr bnu alxaaris nee na yonent bi alayhi salaatu moo ko rey moo ko rey lu ñu rey ko fekk nag ba ñu ko jàppee nag e, doom ji daal nay def xasidaam di tagg yoneen daw bëggoon yoneen tin ko ko ci anam goo xam bu amoon sens fekk ko fa dana ko jéggal rek ci yërmandeem waaye ñàkk na sens ba muy àgg fekk na jeesi ya dal ba mu jóge ba mu ko defee nag ba mu jàngee xasida ba gis na mu ca mu naan a muhammadun ha anta din u karihatin karimatin fi qawmiha walfaxlu faxlun mucriqu ma kaana darraka law mananta wa rubbama manna alfata wa huwa almaxiizu almuxnaq ba mu ko waxee yonent bi yërëm ko barangooñ yi putti putti mu ne ah wallahi su dikkoon la jëkk ma rey ko du ma ko rey ndeysaan daal di dindi ya ñu jële woon ci moom yëpp delloo ko may ko ko waaye nag waa ju texe di ja dee na mu ni wa indama samia ba mu déggee min qutaylata bintu nadr ibni alxaaris rasya qatiliha risa ba mu defal baayam ba ñu rey ba qatil mooy ku ñu rey rasyu ak risa ak marsiya mooy way yi ngay jooye di ko waxe ay ngënee di ku dee loolu moo tudd ras ba mu ko déggee alladi qatil ba nga xam ne la muy tax goree lu ñu ko jéggaluñu ko xanaa rey ko ba mu ko déggee radda lahaa mu delloo Qutayla salabahu la ñu rékkee woon ci baay ba waqad bakaate jooy na sax moom sallallahu alayhi wa sallam shafaqatan ngir yaram Qutayla bi dam mu mu jooy na bi dam ihi ca rangoo ñoom ya almuntaliq ya di aji wàcc nee na yooyu yëpp daal bu woy amul woon solo do am وقد حبى كعبا غداة مدحه ببردة ومئة من أينو وقد حبى مين كعب بن زهير بروم بانت سعاد غداة مدحه سببم كجانغلي مديحم بوبو دي بانت سعاد مين كو ببردة تي أمبوب لا دال ديكو جوخ آه سمي مبوب جوخ كو ومئة من أينو أك تيمير تي أي ناقة mu ni kon su way amul woon solo kay loolu du am dégg faqulhu gayra muksirin bihi wala taaba bi qawli jahilin aw ahmaqi maa aabahu illa ayiyun mufhamun ah ah wa bashara aljacdiya wabni thabiti bi jannatin jazaa shicrin unsuq wa bashara bégal na al naabigatul jaadi bégale na ko ak Hassan ibnu Thabit bégale na leen bi jannatin ci kër aljanna jazaa shi'rin unsuqin ngir muy payug way wu rafet wu ñu ko doon tagge ak di ko ko tontule ay noonam loolu bu way amul woon solo nee na du am kam xaamilin sama bihi ila al ula baytu madixin min baliigin zaliqi misla abil anf misla banil anfi wa misla haarimi wa kalladi yucrafu bilmuxallaqi nee na kam xaamilin bari na ku kenn musta dégg turam mooy dëddul naabi naabi mooy ku darajawu ku siiw ku ñëpp xam xaamil mooy safaan bari na xaamil boo xam ne sama bihi way kawe naag moom ilal ula ba ci ay daraja yu kawe maanaam kawe naag moom baytu madixin wenn baytu tag rek kawe naag moom min balixin wu jógee ci borom balaaxa zaliqin bu ñaw lamiñ benn baytu balaaxa bu balix bu ñaw lamiñ rek yëkkatiku dara jaamu yëkkatiku wul woon li day tafannun ci ad fànnu rek ak ay histoire mu ni loolu comme comme mislu banil anf banil anf anf mooy bakkan benn waay dafa reyoon gëleemam ci arab séddale yàpp wa ak njabootam ay waa këram ak i jabaram ba mu jeex am benn jabar boo xam ne daal dese na ko fonk dégg nga joxu ko dara moo ki doomam doom ja dikk nag ni ko bàyyi ana sunu wàll nun maag sama yaay mu ni ko ah, bopp bi rek a fi des de ba nga doon mu daal di jël buum nag benn bakkanu gëléem nga def ko ca di wetti nit ñi di ko reyataan nag ba tudde ko eh, anfu naqati bakkanu naaga bakkanu naaga waa ji loolu doon gàccee ci ñoom ak naqar ba ci ay sëtam kër ñu di leen wax an anfi naqati seetal arab seen lamiñ moom waaja rek lañ doon wax an fu naqati tur wa taq ko ba ci ay sëtaatam ba xabi giir ga yëpp ñu deen wax banoo anfi fi naqati loolu doon toroxte ci ñoom ba nga xam bu ñu ko waxee dañuy rus mu saboote leen ba mujj rekk xanaa defal nañu benn shaayir lu ko neex rek mu daal di jóg ci wax ci xasidaam di leen teg banaan ah, qawmul humul anfu wal adnaabu gayruhumu wa man yusaawi bi anfi naqati danaba i mujj ñu di ko tiitaro nit ñi awante bi ay ku nekk di wax humul anf wal aznaabu xayruhum wa man yusaawi bi anfina mu ni ñooy nga xam ne ñooy ñooy bakkan ku ñoom genn nga ana kan mooy yemale bakkanu naq ak genn rek ñu mujj di ko tiitaroo nee nañu mujj boo dajee waaye boo ko nee anta min man xaala ana min bani an fi di ko guddal <laughs> arab ñoom seen lamiñ rek moo doon seen àddina moo leen di saboote moo leen di yëkkati moo <laughs> wa man yusaawi bi an fi naatati zanam ak harim itam harim ibnu sinan ak bi ko tagg ya ko zuhair daan tagg ba mujj mu ni giñ na bu ko nëyootee rek bu bu ko nëyootee rek dana ko jox alal ju du jeex xumaag bu ko dee tag ba kooku rusati koo nëyu bu ko fekkee ci mbooloo sax mu ne asalaamu aleykum a xayra harimin wa xayru wa xayruku mustathnayt wa xayraku mustathnayt mu dikkee fekk ko ci mbooloo mu ne ah moom it rusati na ko daal tagg ndax moom da koy jël alal ji rek ba gin ni bu ko nëyootee rek mu jox moo tax bu ko fekkee ci mbooloo mu ni maa ngi leen di nuyu ku dul harim waaye ka gën ci yéen laa nuyuwul ma ne ko fax bi ko tag wa xayrakum wa kalladi yu'rafu bil muxallaq ak waa ji ñuy wax mu waa waaju ñàkkoon amul woon dara am ay doomu jigéenam te doom yi ku yombul dara arab yi daawuñu ko taamu noonu doom ya nekk fa ndeysaan te jar jar ba bis nag e, laacha jaar fa jëm marché Ocaza nee na ñu ni ay laacha ngi waykat bi nag moom buur la fi ñoom di mu daal di ni lay lay wàccee ko daal di ni ko dangay ngay wàcc fi noonu rek mu bëgg ki mu ni ko déedéet wàccal rek fexe ba wàcceeku yorul woon lu benn nàq bu la defe mu daal di dem rek ni leen daal di ko jàpp reyal ko daal di ko ca defal nganaleegu tabaarakalla ba xolam sedd wutal ko sàngaraam mu naan ba xolam sedd mu déey ko nag ni ko daal ah soo yeggee ca mbooloo ma boo nu mënee tuddal njaboot gi dara ci sa wax yu rafet ndax ñu ngi nii day kenn jaru ci te ñoom ñëpp yàgg nañu fi daal eh, tabaarakalla mu ne ko négal rek baal loolu ci ma ba mu demee ci joor daal di coor woyam ya banaan oh. ah, banaan bay wax ni na mu ko de wa baata ala naari nada walmuxallaq walmuxallaq la amri laqad laaxat uyuunun kasiratun ila daw i naarin fi yafain tuxarraqu tushabu eh, li li maqruuri li maqruurayni dafa jël dafa jël fi tushabbu li maqrurayni yastaliyaaniha wa baata ala naari nada wal muhallaq arab ni tawit di ko yéem di ko awante mu tas ci réew ma ñu ba déwén daata jot xale jàq ja yépp ñu dikk takk leen aleykum